ak lan mooy al muamalaat ñu jàng ak yéen démbit ñeenti taqale yi gën a am solo yii taqale ibaadaat ak muamalaat xanaa bon duñ def lu dul sóobu ci bi gën a am solo boog ndax borom bee ko moom te moo di al ibadat ci farañ fàcce mu mel na bu ñu delloo ci ponki lislaam yi juróom muy shahaadataan ñaari baati seede yi muy julli muy azaka muy koor muy xaj dañuy foog dañuy fekk ni bi ci gën a am solo gannaaw ñaari baati seede yi mooy julli julli googu yonentu sallallahu wax na ne moo dox ci diggante jullit ak kéeféer wax na ne mooy téeg mooy kenu gi xenu diine itam wax na ne moom lañuy ñuy njëkk laaj jaam bi yowmal qiyaam itam wax na ne su julli baaxee ñu nangu ko jëf ya ca topp yépp dafay baax ñu nangu leen buñ rejeté julli duñ xool sax beneen jëf yal yàlla boole musal julli moom nag bi nga xamee ne moo gën a am solo gannaaw bu nit ki duggee ci diine moom lañ war a njëkk jàngale bon waaye kom julli du wér ludul dul jiitu te ya ko jiitu ba ca gën a am solo mooy ak laab boroom xam-xam yi baaxoo ci téere fiqhi bunt laab la ñuy njëkke la ñuy jàngale ndax laab ni ko yonentu sallallahu alayhi wa sallam waxee mooy caabi julli alsalaatu eh, miftaaxu salaati miftaaxu salaati at-tuhuur loolu la bi wax sallallahu alayhi wa sallam caabi julli mooy ak laab laab nag ñaari xaaj la laab ci toj ak laab ci sobe ana luy laab ci toj laab ci toj mooy jàpp ci ki nga xam ne toj le na wala tiim ci ki nga xam ne toj la na waaye mënta jëfandikoo ndox wala sangu farata ci ki nga xam ne toj la na toj gu mag moo xam janaba la moo xam mbërëg la moo xam deretu wasin la ak yu mel noonu loolooy laab ci toj ak laab ci sobe laab ci sobe mooy yow miy julli yére bi ngay jullee yow miy julli barab bi ngay jullee yow miy julli sa jëmm ci boppam laab ci sobe sa jëmm war naa laab ci sobe sa yére war naa laab ci sobe barab bi ngay jullee wara a laab ci sobe ngir nga mën a julli kon ñaari façon ngi laab yile ñoo xam ñoom nag duñ mën a ame lu dul ci ndox walla lu taxaw taxawaayu ndox laab googu nag yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne mooy caabi julli mu mel ni toj ak sobe xomb la gu tëj aji julli ji bu laab ñëwee ubbi ko borom mën a julli laab ci luxa ci luxa al arabiya bu ñu waxee at tahaaratu mooy firi ak cet ci tilim moo xam tilim buñ yëg la wala tilimu maanaa la mooy tilim boo xam ne buñ yëgut la tilim buñ yëg mooy tilim bu ne ci yaram tilimu maana mu mel ni ab yéeféer innamal mushrikuuna najis kéeféer sobe la tilim la wala innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijis rijsum min amali cheytaan xam nga ne bant yooyu boo leen laalee du tax nga taq sobe waaye lañ leen di jaamu ak lañ leen di wuure moo tax ñu tuddee leen sobe kon laab mooy set ci bépp tilim boo xam tilimu biti la wala tilimu biir bu dee ci sharia nag laab mooy irtifaaul xadathi wa zawaalu najasi yëgatik toj ak dëñuk sobe yëgatikuk toj nag du amee lu dul ci ndox walla lu wara taxaw walla lu mën a taxaw taxawaayu ndox ànd ak yéene ñu war a yëgati toj googu ci yaram yépp su fekkee ne toj gu mag la sangu farata walla ñu yëgati ko ci ay cër bu fekkee toj gu ndaw la cëri njàpp yi ñoom la raxas ñu yëgati ko walla jëfandikoo luy wuutu ndox ndégam ndox amut walla ñu lott ci jëfandikoo ndox looloy suuf gi nga xam ne aji lottu ji jëfandikoo ndox walla aja aji ñàkk ji ndox moom lay jëfandikoo pour tiim kon ndox moomu nga xam ne nag laab du amee lu dul ci moom war na ñoo xam ay xaajam war xamit ay atteem war nañoo xam ay xaajam mooy lan moy façon ngi ndox yi am yë ca mën a taxaw laabal mukallaf mi ak ya nga xam ne mënuñoo laabal mukallaf mi dinañ fekk ne ndox am na ay xaaj xaaj bu njëkk bi moom la ñoo tuddee alma al mutlaqu mooy ndox mu ñu booyal ñu koy taarifal ci fiq ne huwa almaau alladi ala sifatihi allati xuliqa alayha ndox moo xam ne ma nga des ca melow nga ko yàlla bindee ndox moomu ci sharia luy atteem tahuur ana luy tahuur mooy taahirun fi nafsihi mutahirun li gayrihi ndox la moo xam ne laab na ci boppam mën naa laabal lu dul moom ndox mi laab na bu la neexee sangu ca bu la neexee naan ca bu la neexee it jàpp ca mën nañ koo jëfandikoo ci jaamu yàlla mën nañ koo jëfandikoo ci aada loolu nag mi ngi dëggu ci bépp ndox moo xam ne mën nañ koo tuddee maa u mutlaq ana nuñ koy xamee dañuy dellu ca alquran mu wax ñu ko ñu dellu ci sunna yonantu sallallahu alayhi wasallam mu wax ñu ko ndax maa u mutlaq bu ñu ne mooy ndox mu des ca meloom dana ami saa ndox ma soppeeku wala ndox ma am neneen nu mel waaye dafay yore atteb mutlaq buñ demee ci dina ñu wax xeetu ndox yi ñu mën a tuddee almaul mutlaq bu ñu demee ci sunna it danañu wax xeetu ndox yi ñu mën a tuddee almaul mutlaq alquran wax nañu ne bokk na ci xeeti ndox yi nga xam ne laab nañ mën a laabal maaul matari wa thalji wal barad ndoxam taw galaas ak ndox mu sedd ana lu ci ay tegtal sama borom tabaraka wa taala dana wax wa yunazzilu alaykum min alsamaai maan li yutahirakum bihi suuratul anfaal laaye fukk ak ne mooy wàccee ndox mu jógee ci asamaan ngir mu laabalee leen ci loolay ndoxum taw mu waxaat tamit ci suuratul furqaan aaya 48 wa anzalna min as maa an tahura moo wàccee ci asamaan ndox moo xam ne laabalaa koon la bu dee ci sunna danañ fekk ci xadiisu buxaari ak muslim yonentu sallallahu alayhi wa sallam di ñaan allahumma agsilni min xataayaaya bilmaai walthalji walbarad yàlla yal na nga raxas sama ñaawteef yi te raxasee ko ndox raxasee ko glace raxasee ko ndox mu sedd ñu xam ne kon ndox bu dee bu sedd la bu dee glace la bu dee ndoxu taw la yépp laab na mën naa laabal mën nañoo jooyal ci xeetu ndox yooyu almaa al mutlaq ñaareel ba maa ul baxar nañ ndox moo xam mu sedd moo xam mu glacé ñaareel ba maaul baxar ndoxam géej wa maaul nahar ak ndoxam dex ndax dex moo géej ñoo yem xatte li ciy tegtal yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama dana wax ci xadis joo xam ne mi ngi ci abu daawuda mi ngi ci tirmidi yu mi ngi ci ibnu maajata ne ndoxam géej huwa tahuuru huwa alxillu maytatuhu mu ne géej huwa moom géej at tahuuru mooy laabaakoon maa'uhu ndoxam alxillu mooy aji dagan maytatuhu méddam géej ndoxam dara mënu koo sobel mit demit laab na dagan naa lekk ñetteel ba maaul abaari wal uyun ndoxu teen yeeg sew ndey lu ciy tegtal sama borom tabaraka wa taala moo wax ci suuratu zumari ne alam tara anna allaha anzala min alsamaai maa maa an fasalakahu yanaabiica fi l ardi xanaa xamuloo ne yàlla wàccee am ndox mu jógee ci asamaan mu daldi ko suub muy ay yolnde ci suuf ñu xam ne ndoxu yolnde yi cosaanam kat mooy ndoxam asamaan kii taw moo tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam ba muy mellal eh, ndoxu budaata teen la mu ne inna al maa tahurun yunajjisuhu shay ndox mi laabaakoon la dara mënu koo sobel xadis ji mi ngi ci ahmadu mi ci abu daawud mi ngi ci tirmidi mu rafetal ko yonentu sallallahu alayhi wa sallam it ba mu demee ca teenu zamzam wax na ne nañ ko indil tànkukaay walla nañ ko indil baag ci ndoxam zam-zam bañ ko indee mu naan ca jàppu ca ñu xam ne kon teen ak sewnde wér na ci alquraan ak sunna ne ndoxum mutlaq lañ laab nañu mën nañoo laabal ñeenteel ba ci yi ñu mën a woowe almaul mutlaqu muy ndox moo xam ne dara jaxasoowut ak moom ñu ne almaau l aajinu ay almutagayiru bi tuuli l mukthi ndox moo xam ne yàgg fam ne moo ko soppi waaye dara jaxasoowut ak moom tax mu soppeeku waaye daal fi ne yàgg na fa yàgg ga tax mu soppeeku bay xeeñ wala mu soppeeku ci couleur ngeen baal ma ndax yàggaay ndox mooma dañ koy boole ci xeeti ndox yi laab ndox moomu ndox mu laab la boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci loolu boroom ibnu ashir dana wax ne faslun wa taxsulu tahaaratu bi ma min altaxayuri bi cheyin salima ida taxayara bi najisin qurixa aw taahirin li caadatin qad saluxa illa ida laazamahu fi lgaalibi ka mugratin fa mutlaqun kadaa'ibi jumhurul fuqahaa yi danañ gis ne ndox a ngi ñu tàngal ko ci suufu jant bi bam tàng li ëpp ci fuqahaa yi dañ koy yéegal ci ndoxu mutlaq xilaafan li shafii imam shafii moom nee na wala akrahu almushammasa illa min jihati tibbi nee na wàllu médecine daal tax ma sib ko waaye li ëpp ci fuqahaa yi gisuñ ca benn problème beneen masala jumhurul fuqahaa yi dañu gis ni amul benn problème ci laaboo ci ndox mu ñu tàngal maanaam set set set ca walla dindi ca sobe xam nga waxoon nañ ndox mu sedd ndax alxuraan a ko tudd waxoon nañu ndox mu sedd ndax sunnaa ko tudd waaye ndox mu ñu tàngal nag boroom xam-xam yi am ca wuute waaye li ëpp ci ñoom amuñu ca problème moo xam lu laab lañ ko tàngale walla dañ koo teg ci fu tàng foo xam ne sobe la bam tàng ndax dëkkaale du rekki ak laab danañ ca dikk ñetteelu masala bi it mooy ndox moo xam ne la ko soppi lu laab la soppi na meloom soppi na xetam walla soppi na cafkaam waaye la tax mu soppi ko dafa di lu tiis lu jafe ñu wëttu ndox ma ca loola niki ndox moo xam ne dafa sax ci barab bi garab xobi garab yi di ci wadd saa yu ngelaw uppee xobi garab yi wadd ndox ma soppeekoo ca loola ñu ne ndox moomu neexut a protéger neexut a wëtt gannaaw nag yëf yi saa yu yombee saa yu jafe yomb almashaqatu tajlibu taysira ñu dugal ko foofu ñu ne ndox moomu tamit kenn du ne dafa sobe li ëpp ci borom xam-xam yi wala kenn du ne eh, laab ga dafay rekkee ko ngeen baal ma ci baatu sobe bi ma tudd ndax sobe ak laab mën a laabal eh, duñ benn te dinañ ci ñëw ci ay détails ci gàttal daal mbokk yi xaaj bi njëkk ci xaaju ndox yi mooy almaul mutlaqu mooy ndox moo xam ne ma nga des ca nañ ko bindee woon noonu lañ koy taarifee li ate mooy laab na mën naa laabal maanaam laaba la lii cosaan ci lii nag mooy lépp loo xam ne turu ndox mën nañ ko woowee ndox rek dafay dugg ca loola lu tax falam tajidu ma an fa tayammamu bu ñu xoolee nag xeeti maa u mutlaq danañ gis ne alquran ak sunna tudd nañ ay xeet ci xeet yooyu ñu mën koo tegtaloo ba ne yii daal saa yuñ ko gisee ci anami ndox yile ci xeeti ndox yi le nañ xam ne ndox la muñ mën a jëfandikoo ci laab ndox la it muñ mën a jëfandikoo ci aada bi alquran njëkk tudd wala bi ñuy njëkk tudd ci alquran tudd mooy maa ul matari ndoxam taw ndoxam galaas ak ndox mu sedd ndax aayaat yi nga xam ne ñoom lañ wax buñ demee ci xadis ñu fekk fa mu tudd ndox tudd galaas tudd sedd mina bil maa i wa thalji barat ñaareel ba mooy ndoxum géej ak ndoxum dex ñetteel ba ndoxi teen ak sewnde yi ñeenteel bi ndox moo xam ne yàgg gum yàgg moo tax mu soppeeku ay masala yi nga xam ne ñoom lañ indi benn ñaar ñett benn ba mooy li ëpp ci boroom xam-xam yi si buñu ndox moo xam ne dafa tàng dañ koo jantal dañ koo teg ci suufu jant bi bam bam tàng ñaareelu masala bi jumhurul ulamaa yi sibuñu ndox moo xam ne dañ koo tàngal moo xam safara walla lañ ko teg bam tàng lu sobe la wala sobewut ñetteelu masala mi mooy boroom xam-xam yi li ëpp ci ñoom dañoo gis ne ndox daal bu fekkee la ko soppi dafa jafe ñu tàqale ko moom dafa jafe ñu wattu ko ci moom lu mel ni ndox mu dëkk ay garab saa yu ngelaw xuppee xob yi di ca daanu ndox moom it dafay dugg ci ndoxum mutlaq mooy ndox la moo xam ne taahirun mutahirun wala tahuurun bu soobee yàlla suba dinañ jàng ak yéen alqismu haani mooy almaa almustaamalu fi taharati ñu ngi jaajëfal ñi ñuy déglu yëpp di ndokkeel suñu mbokk communauté murit bi nekk fii ci Amérique ak ci àdduna bi yëpp ñu ngi nii ci yoon jógee New Jersey tabarakallahu ñu santoon ñu ñu waxtaan ci dundu Cheikh Ahmed Bamba bi ci rawatina ci lakku angale ndax ndaw yi nga xam ne ñoo juddoo fii ak mbokk yi ñëw ci programme yi te duñu goreel lakk wolof ñu amoon mbégte amoon honneur lool ànd kook ñoom di ci eh, jiital suñu sanse président El njaay ak Adja eh, naka la eh, tuddati sama xarit ba maama njëkk a toggal ceebkat Bronx ndeysaan Adja Ndey Kumba Mbuub macha allah léegi waa New Jersey la ak borom këram sëriñ Mansour incha allahu ak suñu eh, siste yi nga xam ne ñoo fa nekk toppatoo gan yi ñoom soxna ulay eh, soxna nabu eh, tabaarakallahu ak ñi ñu àndal yëpp ci daayira bi góor ak jigéen sëriñ Moussa macha allah ak daayira Tidiane beeg seen présence présidente Ndurin ak macha allah ñu fa teewoon ñëpp ak suñu xaritu bopp Chérif Mouhamadou Lamine Haydara jóge moom it ba Rhode Island eh, ak imam Moustapha Diop suñu suñu suñu tonton isaan macha allahu di gërëm ñi nga xam ne ñu ngi jàpp ci liggéey bi yëpp rawatina suñu administrateur yi sama doom Mouhamadou Lamine Mouhamadou Lamine Dramé ak eh, suñu soppe sidi Mouhamadou Moukhtar eh, Diop fii ci zawiye bu New York bi ak suñu eh, suñu naka la tuddati eh, xaw ma dañ koy tuddee suñu manager wala suñu suñu assistante muy soxna jëlee nga xam ne tabaarakallaahu eh, lu nekk rek mi ngi koy def ci ICFA pour mu dox koy ñaanal yàlla taxawu ko defaral ko baahiram defaral ko baatinam ci barke yonent yàlla Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع في اختياد واغتنام إلى الإسلام ma tarkil muhaali jawaadun ICFA Institute Al Madina Travel Salum Jidda Sen Info International ak tarixa Tijaaniya in America si njiital suñu imam Mouhammad Muntaqa Sakho ñoo di may émission bu mag bii di seen diine